mbokk internet limametti point com dal leen ak jàmm ñu ñëw ak yéen ci seen naafila juróomeelu guddi ci weeru koor ñu war ci am ñeenti rakk rakk bu ci nekk nga tari fatiha benn yoon teg ci alam nasra benn yoon ak lixlaas ñetti yoon sëriñ bi nee na ku ko def incha allah dana mel ni ko aj junni yoon umru junni yoon des na ko musal ci ak ñàkk des na dolli wasagam te arab yu ci ne des na ko ci bindal ñaari malaaka yuy far ay ñaawteefam di ko bindal aw yiw des na ko ca yëkkatil ay daraja ba bés ba bay dellu si waat ca déwén te bu faatoo des na ko bindal tuyaabay ku dee ci aj te dees na ko jéggal bàkkaaram yépp te dees na ko musal ci metitu dee te faw dana am ngërëmal yàlla te bu des na ko ubbin ca bàmmeelam bunti àjjana mu di sa xewlu ba keroog bi si penc njàngale mi nag ñu ko jële ci téere sëñ soin bu mbàkke moom sëriñ ngi di ñaanal Bye.